géej source recherche la boo xam ne ni ñu war a protéger parce que maanaam lu ñuy jëfandikoo ñu ñëpp ci wàllu jën ci wàllu crevette ci wàllu euh, baaj ci wàllu lépp ci boppam géej lay jóge nit nit nit bu de vie rek maanaam mën a respecté géej di mën a respecté boppam mooy maanaam tey loo jël wu si basaan yi ci biir loo jël saabu di basaan ci biir loo gis rek am na mbañ tey géej géej dafa dafa nekk loo xam ne nii maanaam lu loo ko sànni rek lu ci bokkul si moom rek da ngay génn maanaam nawet bu jotee géej gi ginax lépp lay génne te ñi fi nekk ñoo ci sot mooy maanaam tey jii respecté géej mooy lépp bu nit moo tax mën a def ji boo demoon géej sangu mu ñëw fekk bërëb bi salte ba ko nangoo sangu tey ji boo ñëwoon si ñëw fekk géej gi salte da nga naan waa bi environnement maanaam la civilisation si si ñu doog si kaw dañ ko war a respecté maanaam si la armée armée dafa respecté géej ba ñëw ba teg ma di sabi dito kami, wala po ako kasi sinipong pong gusto ko. Kasi sinipong gusto ko. Kaya bigay di amo dyan, wala amo tala. Ibigay pa ng sabi ko. Man muna may imagine na may leka. Paligyasan ka. Then no, ay tabi din yung balay. Ami dyan na inyo, yung balay ka. Itel ko yung mantina. Ikasani kong balindi. Bus, ikasani kong balindi. Ordi ko hamne ni. Dahil hindi pour nga xam ne ni santé bi baaxul si tamit bari maanaam bu ñuy fonkee yooyu ñu joxe conséquence yu baax maanaam dina aar géej gi ah lu mën di génne ci kenn du am jàngat kon damay ñaan ñëpp di yàlla war a suubi ñuy protéger géej gi si anam ko waay ma ne jaajëf